revue de presse ñu ànd ceeg Alaaji Ahmed Aïdara Eh, waaye xanaa ku ma am ndey ku ma amul ndey da am ci réew mi termine yéene kaa ne waa piscine party ba day waaw caal ma di gee waaw ñeent fukk ak juróom ñaar xam ne ñoom lañ tegoon day ñeent ña ndeke dañoo corona allahu akbar la ilaha illallah yéene kaa gi ne dama ne doomu aadama yooyee kon ndekete ba ñuy ñëw ca gendarmerie boo kam day corona lañ fa indaale termine yéene kaa ne da bu ñu sukkandikoo nag ci day waaw gis nga ñooñee vacances la ñu ñëwoon ci réew mi lé jóge ci daanu Europe ne nañ leen profité nag amal kon suñuy fête ci Ndakaaru Njaay jël kaw yéeni kaay gi ne te gis nga tolluwaay yuuk wàllum ci doonu njaareem tamit day war nañ xoolaat de parce que chef région ba ca boppam waaw daal dinay tiit lool ànd ak njaqare ci lu jëm nag ci wàllum kaa yooye kon nañuy yokkee ak nu nu mel te nit ñi nag gëmuñu feebar bi de rawatina nag ci diwaanu Touba gëlay mar di Italie nga xam ne nit ñi respecté wuñu mesure yi kon benn yoon laa la wax ñu ci baree bari tamit jàpp nañ bi amul mesure barrière yi lé na kaay yeegee kon ca diwaanu Touba googe ragallu na lool ba pare ñu ci bëree bëri tamit la mu ñu feebar ba leese ko yéene kaa ne ba day njàq rek siis la fa corona ba indi de daf ci am ne ko defeeree waa piscine party ba la waaw ndeke dafa indaale kon jàngoroy corona jëde ca kaaf ba te nekkoon dafa daanaka lu tolloo juróom fukki ci ay doomu aadama laa wax laa ilaaha illallaah avocat yaa magistrat yaa garde pénitentiaire yaa ak ñeneen ak ñeneen day seen bakkan nañ ca xottu gerte de 24 heures yéene lii faj nag maanaam Pfizer wala Sinopharm gi en tout cas Abdoulaye Diouf Sarr day ministre waaw nee na président bu Chine Xi Jinping daal dinañuy may lu tolloog ñaari téeméeri junni ci ay dose aha waaw source aané Sénégal d'accord nañu dee ci ñaari téeméeri junni dose yooyee waaye dañ ne attention il faut Sénégal daal di xool nag ay éléments scientifiques balaa ñoo nangu sarax boobee nga xam ni kon waa Chine dañu ko sarax yaa illallah parce que mbir mi day ñaari problème la bu njëkk ba m Chine ci boppam daal lànk ndaari tëdd ngi koy essayé des na yéene kaay daaw da càmmine fi mu la day ci volcan lañ toog mardi parce lu tolloo fukk ak benn ci ay doomu aadama ñoo dee ci benn bis inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fanweer ak ñaar ci ay kaay garaaw téeméer ak juróom fukk ci ñoo xam ne kon jàngoro jadal na leen day 102 cas communautaire la ilaha illallah Abdoulaye Diouf Sarr ministre santé waaw ci bos sobili day nee na ñoom nag ña ngay wax ak waa Chine day ngir ñu jox leen lu tolloog ñaari téeméeri junni ci ay dose vaccin direct news de daf yëngal ak làmbatu day di cacophonie total moo am ci nguur gi de mardi Italie dama ne la Abdoulaye Diouf Sarr deelee gum na lu tolloog juróom fukk laa lay wax nii ci ay doomu aadama ci fukki fan ak ñaar allahu akbar la ilaha illallah Sénégal nag léegi bokk na ci juróomi réew yi nga xam ne kon ñoom ñoo gën a deelee ci espace un mois bi président Macky Sall nag fi mu nekk nii xam nga lan moo ko war jël koo xam ne am na xam-xam ci wàllu santé daal di koy def ministre de la santé laa la wax ñu audité matériel bi nga xam ne day foo force ko bi ba moom lañ jëndaloon waa santé nañ leen ko audité Macky Sall lu am day les éco yéene kaay nee na gis nga saisinu conseil constitutionnel boobee waaw ngir attaqué nag loi bi lée état ba Abdou Mbacké day dal na ci kaw frère ak député PDS maar di tali waaw parce que Abdou Mbacké day waaw nee na bépp député boo xam ne kon justice moo la tax a jóg waruñu laa ñaan sax naan la ñëwal signé loolee waxtaan waxtaan ak Mamadou Diop Decroix day daal dinay wax ak force vive de nee na jot na ñu jog jàmmaarloog Macky Sall laa la wax les ko yéene kaay ne procureur ba day démb waaw nee na dix mille problème yow ole nga indil ñu dix mille solution ngay yokk say dix mille problème laa la wax waaye rapport bi dix mille problème day ca tribunal ba waaw ci source a nee na waxuma couvre feu waaye marche sax fu ma ko gisati damay wiiri ñëf vox sobi ne ca Dakar dem dik Diop ne directeur généralu Dakar dem dikk bu bees bi lée ab oto xam ne juróom ñetti fukk ak juróom ci ay millions lay jar quatre laa la wax é eh way Samba daal di jël nag ay sëriñam wutal leen ay salaire du directeur te Dakar dem dikk goog eh, yaa jum wala maa jum maître Moussa Diop ne looloo am laa la wax ndaataata la ku ndaat ndaat noos bambula ba jugee ca Dakar dem dikk ba léegi ni la looloo fa am maître Moussa Diop ne bun xataab si Abdoul Khatab si laa mi la eh, waaw waaw maître Moussa Diop nee nguur gi ci boppam yoreel na Dakar dem di juróom-ñaari milliards eh way Samba te DG bu bees bi day ñaari sëriñam la jël ñu liggéey ci kër ga ak salaire yu baax dendi waay jënd oto buy jar quatre-vingt-cinq millions eh way Samba marché wu carburant wu six milliards eh waay gi ne waaye yow ana justice bi le ay yorin gu bon gi le ana justice bi le réew mi quotidien ay tuuma lante dem dikk la de maître Moussa Diop Oumar Boun Khatab lii quotidien rek mal gouvernance su Sénégal gi lé otow cent millions la DG bu bees bi di dawal eh way Samba yorinuk seen waa kër seeni sëriñ seeni jabar ñu leen di dundal eh way samba libération yéene kaa ne xoolal ma concession ñaar fukki at ak juróom bi dañ ko war sandi sànni ca poubelle ba de Dakar naaf waaw mooy trésor portugais de ci fukki milliards ak ñaar yoo xam ni kon moom la ñu dugal seen poste ci 2020 bi lé un pour cent donc day la ñu jox nguuru Sénégal gi liyée ne ca contrat ba eh way Dakar Times de ICS sa ngay bañ ñoom ñi yoreel lu ëpp ñaari téeméeri milliards nguuru Sénégal gi lànk de duñu fay xaw ma lànk la xaw xaw ma retard redevance minière yi Alassane Diallo ICS évidence xaw daa yab république bi xaw ma da leen a sampal ndënd évidence yéene yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca ONAS kay day waaw daal dina ñuy setal ne kii nekkoon fa directeur général Lansana Gagny Sakho waaw parce que dafa am ñenn ñoo xam ni kon dañu ko tuumaal ne yorinam googe jaarul yoon yoon waaye délégué yi nañ ko de libération yéene kaa ne coowal jaari day enquête waaw daa mel ni xale bi fa mu nekk day moo fa bàyyi boppam de mar di Italie moo fa la bi mu réeree day jaari sow mi waaw seen nañ ko ca la France baax na lii quotidien ne coowal jaari sow day mbir mi daal mën nañ cee xaar lu ne ba pënd wi wuri rek <laughs> ay ba pënd wi wuri waaye lu pënd wi wuri wuri wuri wuri wuri wuri wuri wuri du tax ñu fàtte pétrole bi de déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne la laaju tëjal thé Dawas le thé à l'état pur waaw ci week-end ñu dëgmal jàppale nag bokk na ci jongante yi ñuy xaar jàmbaax bu sali wak nekk nag waxtu wi ci bopp championnat bi moo fas yéene daral ñiri waa Jaraaf bu Ndakaaru AS Douanes ak Mbour Petite Côte lay doon US Gorée dina ci laale ak ñiri waa Casa technicien yi nag dina dox ci diggante Dakar Sacré-Cœur mu nekk ci fukk ak ñaareelu place bi ak benn poñ fas yéene laale ak Génération Foot nekk ci ñetteelu euh, place bi ak euh, ñeenti poñ di fàttali nag ren jile équipe bu Dakar Sacré-Cœur bi nga xam ne nag kii di Assane Fall moom moo leen tàggat daanaka soo xoolee seen équipe bi nag ñoom dañ ci indi ay coppite soo xoolee euh, ba championnat bi commencé ba léegi ñoom nag dañoo musé ci nag ndaw yu fa nekk waaye teewul nag bëgg nañu def ak parcours bu am solo ci championnat ren gi la bu ñu sukkandikoo ci keneen tàggat di Assane Fall ci ay kàddoom yu ñu yëkkat ko kii Soxna Fall. suñu projet moo présenté noonu ñu ko doon seet boobu ba tey mais xëy na léegi ci la gën a taxaw ñuy joué la ay xale ci côté mental tamit dinañ si liggéey parce que bien sûr ay xale lañu bu ñu leen bàyyee noonu rek ak seen bopp ñuy joué ñi ñi leen tey bu ñu leen gagné sax dinañ taxawaat tey indiwaat mental comme ça beneen yoon a ñu gën a tam ci fan mooy mooy ay xale lañ yool duñ fi ñëw taxaw li xëtoog ñëw wala ñëpp wala di wax ni que ñoo fi nekk ñooy jël lii wala ñooy def lii waaye daal dinañ gën a liggéey dinañ liggéey ba ñu gis xam ne tey tey am na lu ñu def te ba pare ñu jéem a tam nu ñu amee parcours bu baax si championnat bi ñu wax léegi ci ligue africaine des champions euh, équipe bu Tëngéej football club dafa introduire benn dérogation pour entraîneur am ci seen jongante ak Espérance bu Tunisie. waaw waaw ndaxte soo xoolee ak euh, kii di Tëngéej FC moom mi ne nag jëm ci wàllum phase de poule ci ligue africaine des champions dafa dugal nag ab dérogation ngir nag kii di leen di tàggat di Youssouf Dabo mën na nag toog ci euh, banc bu Tëngéej FC ndaxte technicien bi moom amul nag diplôme bi nga xam ne CAF soxla na ko ngir nag mën diriger. équipe boobu leen ba fii ndaxte soo xoolee kaaf dañoo saytu nag euh, sàkku ngir nag ñu am ab licence A jëmale euh, ci wàllum confédération africaine bu football ci nag moom mi diplôme yu am foofu ca Europe la ko nag eh, amee naam sax ni xam-xamam màcc na loolu nag jëm ci wàllum eh, tàggatu kii di Youssouf Dabo waaye nag tax na ba Tëngéej FC dugal ab nag eh, dérogation ngir li nu mel mën a antu di fàttali nag ni lu jëm ci wàllum phase de poule yi équipe bu Rufisque bile dina ci laale ak Espérance bu Tunis Mouladiya bu Algérie ak ñi di waa Zamalek bu Égypte jàppal na sax ni kii di démb nak la Confédération africaine bu football fësal ab calendrier ngir nag lu jëm ci wàllum yooyu le phase de poule ñoom nag ñu saytu bu baax a baax xool taxawaayu équipe yi ci seen ay championnat Teungueth FC nag fas yéene ci laale ci nag génnam gu njëkk ak espérance bu Tunis loolu nag dinañ ko amal ni niki fukki fan ak ñaar. wala fukki fan ak ñett ci weerum février gu ñu jëm ñaareelu marché bi nag fii ci réew mi lañ koy amalee foofu Zamalek la fas yéene laale ak Zamalek bu Égypte ñaar fukki fan ak ju euh, ñett lay doon ci weerum février ba tey bu si jógee nag dina laale ak équipe bi di Mouladia bu Alger foofu ci Algérie niki fukk juróomi fan euh, ci weerum mars mars jëm nag ci manche aller Ligue africaine des champions. ñu wax léegi ci programme euh, championnat européen te jule ci ngoon ak euh, final trophée bu des champions. waaw trophée des champions foofu ci France. Paris Saint-Germain fas yéene ci laale ak ñii di waa Olympique bu Marseille loolu bu vingt heures jotee foofu ci stade bu Bollaert nekk ci Lens trophée de champion nag ñu nemmeeku ne nag ati mujj yi ak ñii di Paris Saint-Germain daanaka daal ñoo ci teg loxo lool nag gannaaw Qatar yi dirigé nag lee club waaye teewul nag ren suñu xool ndax jëm ci wàllum nag phase aller bi ci championnat bu France. Marseille moom moo gagné woon Paris mu nekkoon match bu am solo sax ba tax na nag kii di leen di tàggat moom di André Villas-Boas jàpp na daal tey dina dinañ nag dem ba jeex seen diggante ak Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain nag am équipe euh, entraîneur bu bees di woo si euh, turu Mauricio Pochettino moom nag xam na bi nag la bëgg mu nekk trophée bu njëkk gannaaw ba muy tàggatoog léegi ñu nak wax ci dix-huitième journée foofu ci Angleterre ñu ngi tey nag lañ koy wéyal dix ci diggante Manchester City la vingt heures quinze minutes Aston Villa mooy dalal di waa Tottenham démb nag Sheffield United moom dafa daan ko bi di waa Manchester United ñoom dañoo daan équipe bi di Burnley benn bal ci dara seen bi bi sax kii di Paul Pogba moo ko dugal waaye nag jàppal ne waxtu wi kon ñii di waa nag Manchester United ñoo nekk ci bopp championnat bu Angleterre rawee ñii di waa Liverpool bu ñoom Sadio benn ñetti poñ kon ci dimanche bi sax daanaka ñaari équipe yi ñoom nag ñoo fas yéene laale El kon fii la ñuy ndax képpe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. équipe yooyu sant tonton ñoom fu ñu nekk. ci Angleterre Roelanton ak Nanton. Southampton ñoom ñoom doon nañu jogante sax ñoom ñaar de. waaw doo ay yu bëri ku gagné ku mujj gagné. wala kan kii. xam nga wàllu borom ton nag ñoo gën a daanaka taxaw at bi. tonton ñoom di seen sant yi tuwakkal <laughs> nga xam naa ne dañoo bokk dañoo bokk bàyyi te bokkuñu yaay li wujje tubarkàlla <laughs> jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bàyyi ma antam boobu ñu xuus ci xibaar yi te dawaas lu thé à l'état pur di ataaya bi gën ci ataaya yi moo